kon jataay bi di ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisu cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee aay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñu boroom wax na ko fu baree bare bare cant nag la ci jiitu mooy cantu cantu xol mooy bi wa ma bikum min ni'matin fa min allah ak cantul làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum ba ca des mooy cantuk jëf i'malu ala daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax qalilun min ibadiya shakur kon sant lu jëfe la loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ne li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif àdduna si na mu ko waxale boppam da cee déggoog ñoom yàlla def na man seere laa ci ba ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li ñu ci bëgg la ma wax mooy te naa ko ci télé bi ñëpp dégg yaakaar naa ku arrière bandi da nga ko ci fekk nee li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rek ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba bërki démb rek waxaat na ko ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax ne Touba de dañoo sedd na jàngoro ji jeex na fi wàññiku ko na mooy loolu nekkul ci suñ ginnaaw suñ kanam la ne suñ Touba noppi na ci nañ ko bàyyi ci loxo waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñu fooyee du ñuy bàkkoo itam kon lu ñuy sant suñ Touba waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak lu bare bari nee na mbirum baatin du lu ñuy fooyee du lu ñuy caaxaan mbirum suñ Touba lañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant lii ko sëriñ Touba sagale ci kanamu àdduna wane ne ne Serigne Touba tey la fi gën a ne Serigne Amsatou Diakhate daana ko wax nee na kuy nattab ne Serigne nekkatu fi kon boobu amul dara ci basiratu waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha yaqin ji mu amoon ne jàmm rek a xew wane na ko ndax ñi nga xam ne ñooy wàllu àdduna gi wane nañ ko wax nañ ne màggat gisuñ benn jeexit mu am ci jàngoro kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne Touba tabañ bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne may Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa biiri nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën a yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne Touba defal ci biir àdduna lay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu adduna sépp la ne te Serigne Touba xatalul mbiram. képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñoo itam nañ ko ko nañ ko sant yàlla sante ko Serigne Touba damañ ko bàkkoo boobaa kat tawféex rek lañ jural te xam ne Serigne Touba dafa yaatu te moom wax bind na ne li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man ndax ren jii kat xam ngeen fi àdduna toll waaye Serigne Touba wane na ci xar baax xar baax yi mooy ñëpp ñëw nañ. yàlla aar na dañ ci jàngoro bañ delluwaat ci jàmm kon loolu xar baax féetewu kaw jamono xat na ci àdduna sépp nekk ci crise ñëpp maase nañ ci xam ne bañ nee suba la màggal gi aw nag wala xar desatul ci dëkk bi te loolu mos am loolu itam wane ne xar baaxu Sëriñ Tuubaa kon suñu Tuubaa foo ko natt weesu na kon li ci des mooy gën a góor gën a feddli suñu laxasaay gën a feddli suñu positif te xam ne Serigne Touba lépp loo xam ne ñaan ko suñu borom suñu borom may na ko ko te lii ñu weer weesoo itam wane na ko nekkul loo xam ne euh, lu ñu natt cim xel la wala lu lu ñuy gént wala lu ñuy xalaat day waaqi amal muus ñëpp ci teg seen ba ñëpp xam na ne li xew xar baax la xaar baax nag Serigne Touba ñoo ko faggu Serigne Touba xéwalu yàlla la ne ko Cheikh Sidiye waxe woon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñu borom kenn mënta lim xéewal yi ñu defal kon nag nañ ko sant bu baax